CGE ñoom Macky Sall nañu ragal waa Bennoo Bokk Yaakaar nañu ragal mais dañu ñeme askawnu senegal bi ñeme waa Sénat ñeme waa justice. buñ ñu jox amuñu argument comme d'habitude amuñu argument amuñu ay explication ay explication daanu charette la parce que soo nee euh, Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale bi te yow nga xam ne yow yaay administration bu ko war a dugal ci liste électorale nga bañ kaa dugal ci liste électorale bi ay waxi euh, maanaam. nga ne dañuy wax ak ñoo xam ne muusuñu donc seen communiqué yi yaakaar naa ne bindaluñ ko sénégalais yi parce que sénégalais yi xam nañ lu xew peut-être dañ koy bindal opinion internationale ñoo xam ne xamuñu Sénégal nu muy doxee pour jéem leen tuur lëndëm Sénat également laaj nañ ko mu wax conseil constitutionnel mu tenir tappale yi ñuy def ak caaxaan yi ñuy def bañ ñu jox suñu fiche de parrainage di ñu perteloo temps di ñu dawloo di ñu këyitloo pour que ñu tenir ci compte au moment du dépôt des déclarations de candidature mais lu ñu mën a wax ci tënk mooy Ousmane Sonko dina nekk candidat Ousmane Sonko dina jël ay fiches de collecte de parrainage te ñun nañu def lépp loo xam ne moo nekk suñu mën-mën ak suñu sañ-sañ pour loolu mun a nekk sur le plan politique et judiciaire